salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi lii ne mooy concours général bi nga xamante ni organisé nañ ko deux mille vingt quatre loolee nga xam ne mooy nataal yi di ko jëmmal tey ñu ngeen leen di wan noone bachelier yi ñi nga xam ni tey ñoom ñoo gagné li la di prime yi ak président Diomaye Diakhar Faye moomee nga xam ni jiite na remise diplôme yi ak ki la nga xam ne mooy premier ministre am di Ousmane Sonko.